Modou Lo Ama Balde. waaw Modou Lo Ama Balde combat ma si wax sax cool day bari <laughs> da waa Pikine dañ may wóor ndax man yàlla moo def fépp dama fa am nit. ñu hmm. ne ma suñu nit ngay bul wax si combat boobu bul wax si. mais des fois nga seetaan dégg nit wax loo xam te ni sa xol jug. Hmm. man rek lu ma fu ma jëm tàggal ma piite Modou Lo ba mu koy faral du tey. Hmm. ñu jógee Modou Lo samay xarit. fam papis hmm. kon tey Modou Lo buy bëri may si xiini wala xaana man naa feex la hmm. te yàlla tamit am fi mu def si Modou Lo muy fulla fayda jom ak yar àdduna gi taxaw nag ne Ama Baldé dina daan Modou mais bàyyi loolu du am. yow si ñoom fu ñu ko teg. mystique ñoom li ñu jàpp ne mooy daal Modou mooy galaaj ñun bu ñu xoolee ba ñuy téye Modou si galaaj ñoo xam ne duñu ay bu dee galaaj képp dong la Ama Baldé yaakaar bu du ko daan ak ku mënti moom nag laa wax su dee galaaj kase kase kase la yaakaar si ko bu dara Modou du ko daan. combat boobu kon nu muy mujj ci dóor mu daanu bëre wala nu muy mujj. bàyyi lu gën a wér. mooy Modou Lo pareegul perte roi des arènes lu gën a wér laa la wax. Hmm. pareeguñ sax pour jox roi des arènes bi ko jëlee yàggul mu jëlee roi bi yàggul su ma jugul deux wala deux mille lañ ko jël. mbër jël na ko ci at bi at bi ci topp mu ñàkk ko. waaw ah, ñu nag mbër yooyu duñ benn mu mbooloo topp si ginnaawam ak bu jugee parce que lu mu jugee du yoon muy jël combat. am si ndam muy roi bu bari di bëri jiwaat combat royal di ko perdre jaafa ko ba ñu ko joxee drapeau li sa muy xare ji dafa téye drapeau bi di xeex di xeex ban dagg benn loxo bi mu téye drapeau bi benn loxo bi di di xeex di xeex ban dagg benn loxo yu mu teg ko fii si pooj yi drapeau bi daanul mu loolu drapeau Parcelles Assainies la yëkkati 1 ba 26. comme defet de bu soobee yàlla Amadou daat mu lu